الله أكبر الله أكبر غير رانيا كوميجي فاس ديل اك واراتي واي فاس ديل اك لو لاج خلام نيت كي خلات يداول خلام قصه بو ميجي اجو شنو كوتياد yonent ci yonent yàlla yi ak lim jamar lol ci dundam ci ay xew-xew ak i nattu ak ciono lol lépp dik ci sar wo xamni yàlla mi ngi ko tuddé yonent yàlla bobu boo qissa bobu moy qissa yuusuf alayhi salaam نحمل الكوي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم موم دا تد دون دومو كو تد مو يعقوب كوكو دون دومو كو تد مو اسحاق كوكو دون دومو كو تد مو ابراهيم عليهم افضل الصلاه والسلام يالا نغي تامبالي ساروي ci wax yonent bi ne ko dañ la nettali li gën a yéeme ci nettali yi bima awxayna ilayka hada alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin xëy na sax lu njëkk lii xamoo woon qissa bi ca nam xóote ak détail yam àndal ba yàlla demee bay jeexal mu ni nekk na ci xeeti nettali yii ak waaraate ñeel borom xel yi ndax moom du nettalewuñ sos waaye day dëggal lii ñëw di leeral lépp doon njub ak yërmande ñeel ñi gëm moo tax sa yusufa di ko fàttali dana jëriñ ku gëm yàlla yàlla sax borom nee na xeeti xissa yii muy xissa yusufa yu ni mel ak waar la ñeel boroom xel yi nettali la bu kenn susul waaye day leeral lépp doon njub ak yërmande ñeel ñi nga xam dañoo gëm kon mbokki dinañ taxaw ci ay taxawaay taxaw seetlu ci biir xissa bi lan lañ ci mën a jànge en tant ay jullit yàlla saa borom mi ngi tàmbalee nettali bi ci gént gént goo xam ni yuusufa moo ko gént nettali ko bàyyam id qaala yuusufu li abihi ya abati inni raaytu ahada ashara kawkaban والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين من يوسف باي من دما جنت fukki biddeew ak benn ak jant bi ak weer wi ma gis leen ñu may sujootal bàyyam comme yonent yàlla la xam na ca saa si la gént ga tekki mu xam ni li muy annoncé mooy mbirum yuusufa mbir mu rëy lay doon mu nu ko yow sama doom لا تقصص رؤياك على اخوتك بول نتري سا جنتي كي سا مبوكي نداخ بوكو ديفي فيبر اينان من نا جيخيكو تي نيوم ني فخيل لا اي فخي نداخ شيطان نونو نيت لا موي نيت كي نياري من نا مولو تي موم كوكو جيخي ول دو جيخيكو واي كوكو جيخي نك مو جيخيكو لولا جيخيتال تي موم بو ديفارو ay wax mbaa ay jëf waaye loolu moom Yaaqub dégloon na ko ba mënatul a nëbb cofeel gi mu am ci doomam Yuusuf ak kam bokkal ndey ak baay muy rakkam bëgg gu jéggi daye goo xam ne dem na ba feeñ ci bëti ay mbokkam ci ni waajuram di jëflanteeg moom ne ñoom amuñu xejj googu ah ba loolu amee nag ci lañu wax ni la yuusufu wa axuuhu ahabu ila abina minna wa naxnu usba inna abana la fi dalalin mubin اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ñu ñun daal li ñu seetlu mooy suñu papa Yuusuf ak rakkam ji ñoo ko gënal ñun mbooloo mi ñun mbooloo mi mat fukki nit ci góor ak i waxambaane ah, Yuusuf ak rakkam ñoo gënal suñu bàyyi ñun ñii kon luy pexe ñu réunion ñu ni kon dañ leen rey dañu rey Yuusufa wala ñu sànni ko ci àll bu sori bu ko defee suñu bàyyi doon ko gis yam ci ñun ñi muy gis nga xam ne iñaan yàgg naa jëfloo nit pexe yoo xam ne yu doy doy waar waaye bàkkaar boo gisee bu doy waar mooy boo tàmbalee benn day xëcc yeneen ni mbaax di xëccee ay mbaax noonu la bàkkaar di xëccee ay bàkkaar ñoom bàkkaaru iñaan moo leen dal mbokk yi iñaan bàkkaar la iñaan mooy xool lu yàlla defal nit nga ni lii warta am iñaan dana dem ba yeggale nit ci kufur mu weddi yàlla ndax weddi ni yàlla mooy séddale te yàlla dafa maandu yàlla lu mu def noonu la yàlla wax ni yéen ñii iñaan yéen a ngi sànq seen waxtu wala tatamannaw ma faddala allahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibu mimma iktasabu wa linnisaa'i nasibu mimma iktasabna was'alu allaha min fadlihi iñaan tànnal sa bopp la li yàlla joxe moo koy joxe góor ñi muy jox moo leen di jox jigéen ñi muy jox moo leen di jox yow boo bëggee ci yàlla dara ñan ko yàlla asalullah min fadlihi li yàlla joxe yonent bi aleyhi salaam na bu joxoon ñépp ku nekk la nga bëgg nga di ko lim ba mu jeex yàlla jox la lépp ba nga ni yàlla doy na mu ni loolu lépp boo ko boolee mu ngi mel ni nga jël puso sàmp ko ci géej lay takk ca puso ba ak lay def sa ndox ma kon ndax ku xam yàlla dana iñaan si ku xam yàlla du iñaan waaye ñoom feebaru iñaan moo leen yóbbee ñu toggoo ay feebar yeneen yóbbee na leen ñu dëngee seen waajur ndax naqaral sa waajur mënta weesu fekk kam gëna a sopp ci xolam ci njabootam nga tumuraankel ko xañ ko ko baa nga faat ko dënge gu metti la dana ñëw ci kanam ci yu mel noonu lu ñu koy wattoo dog nañ mbokk ndax ñoo Yuusuf ñoo ñoo bokk bàyyi iñaan tax mi dog mbokk ga fexeel nañ jullit ndax Yaaqub ak njabootam ay jullit lañu wax nañ lu amut ndax dem nañ ci àll ba sànni ko ba noppi rey fa gàtt takkal mbubu Yuusufa ñëw ne seen bàyyi till moo ko lekk seen baye xamni ne amut ndax bu tini lekke nit yére yi ñi génnee ci mom dana xoteku ay yére ya xoteku dara xewut ñu soti ci deret ñëw ne ko baye mi ngi ni kat dafa ci la ko lek mo tax mu ni mu ni fa sabrun jamil muñ ko rafet rek ndax lu ma ci tek rek ciow lay indi comme yéen àndu nag mom yéen ay mbooloo mi def ngeen li ngay def lu ma ci tek ciow lay indi fa sabrun jamil yuusufa ñu sànni ko ci teen bi ñoom ay mbokkam yàlla nattu ko ay nit di romb mooy xaafila di njëgg di romb soxla naan di dem ci teen bay wëgg bañ sànnee baag ba yuusufa la nga amu ci ñoo la génne ko gis muy xale bu rafet ñu nëbbatu dem jaay ko balaa ñeneen yónni xam ni dañoo for dara ñoom jàpp nañ ni dañoo for ab jaam bañ ko jaayee ñu di ko jaayante ba mu yëg kër buur ñu jaay ko buur yuusufa nekk ci kër buur booba di fa dund dundin bu rafet buur ba wax ni akrimi maswaahu nañ ko teral ndax mën nañoo jëriñ wala ñu jàppee ko doom ba yusufa demee ba nekk mag nag gannaaw nattu ba mu natt ba mu amoon ci goneem yàlla génne ko ci nattu boobu mu dund ba doon mag beneen nattu nag feeñ ci kaw nattu boobu lu ko waral xéewal gu yàlla def ci moom mooy taar yusufa ku taaru la woon taaroon tax na soxna kilifa ga ko yoron xelam dem ci mom yàlla ñukoy koy muni mu wa raawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al abwab wa qalat hayta lak qaala macaada allah innahu rabbi ahsana maswaay innahu la yuflihu adh-dhalimun muni kam nekkon ci kanam di soxna sa dem ba xelam nek ci mom yusufa di waxambaane amu fi mbokk ndax dëkku fi di yëg li góor di yëg bu tollee ci atam jigéen jooja doon jigéen ju am doole doon jabari kilifa sàkk ko ci boppam tëj bunt yi ne ko pare naa pour yow hayta lak lan la ci yusufa teg mu ni maada allah ay waay maa ngi muslu yàlla ci li nga woo man góor laa sa borom kër innahu rabbi ahsana maswaay teral na ma teraanga ju rëy te yàlla du faral kuy tooñ ma ñëw ba ci këram gannaaw teraanga jooju di fi def naka suri noonu loolu xalaatuma ko waaye jigéen ja bàyyiwut wa laqad hammat bihi mu daal di yittewoo yuusufa lool yàlla mu ni wa bi biha lawlaa an raa burhaana rabbi yuusufa góor gi mu doon waxambaane ji mu doon bu ko yàlla warlu woon ci ay kéemtaan lu tax mu dellu ragal yàlla suñu borom kon xelam dana dem ci ndaw sa waxamma bi halila an raa burhaana rabbi waaye yàlla muy noonu ñu def lañ def ngir wàññil ko ñaawteef ak mbon ndax njaaloo ñaari ñaari góor ak jigéen góor ak jigéen séq sëy ci lu la anamu sharia loola yàlla suu la ko ci tuddee ak fahsha dafa bon dafa ñaaw nga xam ne jamono ji dem nañ ba nit ñu bari woyofal ko mel ni du dara dégg ngeen sax nit ku xamul dara di wax ne jigéen mën naa toll foo xam ni day def nangam jaay boppam nga xam ne ñi ngi jàngal nit ñàkk jom te kooku ñeneen ustaas la moo tax ñooñu seen mbir danañ ci ñëw ci kanam réew mi mi ngi bëgg a tas ci ñooñu nga xam ne jànguñu xamuñu ragaluñ yàlla waaye comme téere dina ji dafa vide kenn contrôlé wu ko kenn nekk fi di jàjj kenn lu neex waay def lu neex waay wax ku ëpp fi rek gën a ñàkk kersa lu la neex def ku la wax nga ni ko xamoo dara lu la neexi boo dëgëri fi sax lu la wax nga ni masala bi xilaaf la xilaaf xilaaf ci ngay jàpp rek yow te dara mënoo ko jàng amoo xam-xam ci dara lu ab saay-saay nga rek boo xam ne bi nga xoolee teere dina ji widd kenn occupé wu ko nga bàyyi ngoyaan ya ak taxawaan ya dem li jënd sa ñetti aaya ak sa ñaari addis ñëw ci mbooloo bi jaxase nit loolu ci musiba yi dal Sénégal la bokk fi mu nekk ba loolu daw ndaw sa topp ñu njëkkante bunt ba ba njëkkantee buntu ba ndaw say xëcc mbubbam mbub ma xotteeku ci ginnaaw yusufa ibbi buntu bi yam ci kilifa kër gi allahu akbar wa alfa yaa sayyida haladal baab ma nga fekk sangam muy borom këram ca buntu ba waaye mu def pexey jigéen mu ne waaw yow kilifa gi nooy def ci góor gu des sa kër di sànko sa soxna ah qaalat hiya raawadatnii an nafsi de yuusufa ne ah moo ma doon sàkku de may daw waaye tuumaal na ko mooy tuuba alalu la tuumaal na ko nooy def ci gone góor goo bàyyi sa kër muy sàkku sa soxna yuusufa ne déedéet demewul noonu de moo ma doon sàkku may daw na ca noonu rek nit ku maandu te bokk ca waa kër ga di mbokk mbokkum soxna si wax ni attention lu mel nii bu amee kenn fekkewul liñ mën a jàpp rek mooy ay tegtal lan mooy tegtal yi góor ak jigéen bu ñuy béjoo bu mu buxu góor gi xottee ci kanam ñu gàjje ci kanam moom moo doon sàkkuwaate ndax ku ñuy sàkku te bëgg danga bañ jigéen li mu gën a fonk muy boppam ku ci bëgg a yegg ci lu noonu dana bañ xeex ak yow mu ne kon bu moom bi xottee ko ci kanam ay gaañ-gaañ feeñ ca kon moom yuusufa mii moo tooñ li ndaw si wax dëgg la waaye nag ku ñuy kuy daw ñu lay dàqi bu sa mbubb xottee ko ci ginnaaw bu mu xottee ko ci ginnaaw ko doroon daw ñu koy dàqi ba ñu xoolee mbubb ma mbubb ma xottee ko gannaaw ñu xamni kon ndaw si kat mo waxut loola waye jawaru ki defal degal déggal mune mu ne ala hada yusufa bàyyil li yow jigéen ji istaghfir li dam bi ki jégalu say bakkaar innaka kunti minal xaatiin yaa tooñ waaw li indi loolu nak moy li ñu de raison d'état moy ñaare këru buur bu fa dara xewé dañ koy nas nasal ndax bu siwé mën na yak lu bari loolu mo indi buur bi nas nasal waaye mbir mi nag commencé siiw ndax ña ko fekke woon danañ ko nettali ñépp di ko waxtaane ba mu yàgg ci pencum jigéen ña ba mu ca yeggee mu dégg ko moom jawaru buur mu woo jigéen ñëpp ne leen kaay leen ma invité leen jox ku nekk paaka muy xolli pom mu nu yusuf buñ toogee nga génn seen biir ba yusufa génnee fa la ma raaynahu akbar dahu ñu yéemu ci moom يم بفتشن بوب دي داجي سن لوخو وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا لدني ان هذا الا ملك كريم كي ينت يلا كي ملائكه لا متد مودالي نك سوغا نك وني كير سامسن كرام ني لي نانغن ما يدي فذلك الذي لمتنني فيه من ماكو ساكو كون لك لك تي كاو كاو انفورماسيون دا فا لير كاو كاو تي جيغي نكاوي wax na leen di xew man maa ko sàkku ni ku nekkoon ci yéen ci moom noonu ngay def muy jafe-jafe lu ba muy jafe-jafe lu waaye wala in lam yafaal maa amuruhu bu deful li ma ko sant la yusjadan na dañ ko tëj wala na min as-saaxirin dana bokk ci ñu tuuti ñi xoolal fi beew mën a yegg ci nit maa ko sàkk bu bañ bu nanguwul danaa ko tëjlu dana tuuti ci kanamu nit waaye mbokk yi julit ak ku yàllay sàmm mu yusuf alayhi salaam xamal na yàlla sama borom mi muy mi muy ñaan ne ko yàlla as sijunu dugg kaso ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi moo ma gënal liñ may woo waa mbokk yi xoolal kii ndaw lu toll ni moom tey ndaw ñiy wër lu bon di ko wuti di def ay xaalis yu bari ngir jot ci lu ban di laye seen ndaw di taxawaalu ba sax ay mag dugg ci kii ndaw lu toll ni moom nee na yàlla dugg kaso moo ma gënal wéet ak jigéen ci néeg allahu akbar waaye nag dañoo bari pexe de illaa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna soo ma wujjalul seen pexe yàlla mën naa jum tàbbi ci de dimbali ma rek nga musal ma ci ñoom fa sarafa anhu kaydahunna yàlla musal ko seeni pexe ndax moom yàlla huwa samiul alim mbokk yi xissa bi day continuer ba yusufa dugg kaso ba génn kaso ba ñëw ci buur bi di ko xelal ndax yàlla li mu ko mayoon ci wàllu gént ba mu ñu dénk ko kilifteef ndomb tànk yu mag ci réew ma ba muy doxal ba njabootam gam bàyyi woon ca dëkk ba ñooña bekkoor ba sonn ñëw ci moom mu di leen dimbali ci xamuñu ko dem ba yàlla indil ko yaayam ak baayam ak mbokkam yépp ñu sukk ci kanamam su jóot loola firi la mu géntoon bu njëkk te baayam noonu ko bu ko nettali mbokk yi bi yi ci nekk ci ci njàngale yu bari la buñ taxawaatee ñaareelu taxawaat dinañ ci ñëw benn benn ñaan yàlla defal ñu tawfiq ak tey si rek aafiya aqulu ma tasmaun وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين مكيرين yi قصة بيتي ci xissa bi bi ci jiitu te gën cee leer mooy àdduna daal yemul fenn nit ki da ngay tuxoo ci ay xaal dem ci yeneen nit dana jóge ci nattu dem ci xéewal jóge ci suufe dem ci kawe jóge ci tiit dem ci dal jóge ci ñàkk dem ci am àdduna na la ko yàlla bindee wa tilkal ayyaamu nu daawiluha bayna annaas ku jàng xisa yusufa da nga gis lu mel noonu àdduna bi wëlbatiku kon bul nekk ci benn xaal ba tax nga découragé ci yàlla bul nekk ci benn xaal ba tax nga beew nit nekkoon na ci xaal bu gën a metti sa bos yàlla génne ko ci yóbbu ko ci xaal yu kawe kawe kawe yoo xam ne yaakaaru ko woon nit nekkoon na ci xaal bu metti waajuram ñu bind ko muy liggéeyal moroomam ci këram du ko gardeel këram yàlla di ko ombat mu dem ba ne yilif réew ma yépp ne réew mi may seen président tey yàlla dafay def loolu day day jëlee nit ci xaal mu dem ci beneen xaal nit amoon na ba mbeew jàpp ni ñàkkul dara ba tàmbalee ségéré dem ba amatul dara di làqatu nit ñi loolu yàlla da koy def kon boo ñàkkee bul ñàkki boo ñàkkee bul xaddi amal courage xamal ni yàlla dalay nattu rek waaye yàlla dalaa bëgg yonent bi xool na jigéen mu téye doomam gannaaw xare bu metti mu ngi téye doom ji rek ne luy dal na ko dal bu mu dal doom ji mu ni yaakaar ngeen jigéen ñi dana jël doom di ko sànni ci sawara saxaaba yi ne ko déedéet xalaatuñ ko mu ni leen yàlla bëggee moo raw ni jigéen ji bëggee doomam bu ko yàlla dafa bëgg ay jaamam moo tax ku yërëm jaami yàlla yërëm ku soxor ci jaami yàlla yi yàlla mbugal la ndax yàlla dafa bëgg jaam yi kon boo nekkee jafe-jafe bul xàddi amal pastéef del ñaan yàlla del góor-góorlu te xam ni lii ibbi nit yàlla boo xam nu mu doon nit ibbeeku ci lu nekk waaw ci lu ñuy xeeb lu ne rek yàlla ibbi na ci nit booy déglu nettali ñu yàlla may dara léeg-léeg nit nettali la nga yéemu sax ci li muy wax lu mu doon ndax lii nit mën na cee am dara yàlla jaare ko foofu ibbi ko yow mi yàlla mayit bul beew xamal ni nit ëppale woon na la waaye ba mu beewee yàlla sama borom toroxal yàlla def lu baax ci li nga am yàlla di la ko dolli ndax loolu buntu sant la la in shakartum na ko bokk na ci nit ki day wattu fitnay làmmiñ ak bët gis nga Yaaqub la mu waxoon Yuusuf bul nettali nettali bii bu ko nettali sa mbokk yi balaa ñu laa iñaane loola day tax nit wattu làmmiñ ak bët li xew jamono jii nga xam ni nit ñi boobu bëggee xam li ñuy dund dugal ci Facebook mbaa nga dugg ci statut mbaa Instagram mbaa nangam nit ki dundam yépp a ciy nekk buy lekk ak buy naan bu soloog bu simmeekoog ay doomam ak lépp dugal leen loola baaxul nit dangay ngay wattu bët ak làmmiñ yonent bi nee na bu dara doon jiitu dogal bët lay doon mu ni bët dugal na nit bàmmeel dugal na gëlem ci cin topp rek moo mel nii moo mel nii mu ànd ak ndogalu yàlla mu faatu topp rek moo toll nii moo toll nii gëlem gu rëy gi mu ànd ak ndogalu yàlla rek ñu def ko ndawal nit day wattu li xew jamono ji kenn xamul lu mu doon na ji ne xewal yu bari yu nit di am balaa mu ko am dana jaar ci ay nattu nattu mooy kerkiraanul awliyaa ci wàllum baax waaye nattu ci mbiri àdduna it nit la muy am mu di ko jëriñ balaa mu ko am mën na ca sonn léeg-léeg nit am dara te du ko jëriñoo ndax xamul xamul coono bii tax nit mën a am lu mel ni mën ko jëriñoo kon moo xam xam-xam lu mën a doon wa kadalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min tawili al ahadith ويتم نعمته عليك بلا خيوال جي ماتيو ديغا ام اي جار جار جار جار يي نك ليك ليك بوك نتي نا بوروم كير يي اك كليفاي تلاي كاتان ما دو سي نجابوت جي ندخ باغا جيك يك يكو انيان كي لين سي نجابوت جي لول نك بوروم كير نانكو باي خيل بو يوري اي سخنا بو يوري اي دوم نغا فخه بول ديف سي سا ديفين mbaa sa waxin luy jéqi iñaanuk ñenn jëm ci ñeneen na nga fexee maandu sa kantalaay kattan ittaqullaha waadilu bayna awlaadikum la yonent bi wax ragal leen yàlla te maandu ci seen njaboot seen diggante yi doom bokk na ci nit ki di wattu bu dee góor la muy wattu di wéet ak jigéen ndax lu ne mën na cee am na mën na cee am tuuma mën na cee am te ñaari benn baaxu ci na nga tàbbi ci moom ci buntum njaaloo wala boog ñu tuumaal la ci te doo am foo ko foo ko weddee ndax wolof nee na fa yow a yegg du man yeggu fa fa yow a yegg du man yeggu fa kon nag wattul di wéet wéet nag mooy wéet bërëb boo xam yéen doo nga fa nekk seen xel dal ci keneen ku ñëw fekk leen foofu moo xam luñ tëj la wala luñ sécuriser nga xam ne daal wóor na la fii ngeen nekk moom seen xel dal na ci kenn fekk leen fi loola góor da koy woytu saa yu amee rek fitna mën naa am bu yàlla nattoo nit mu nekk ci barab boo xam ni fitna ma nga ko fay fekk si ndax moom ba mu fiy nekk kenn nekku fi woon waaye jékki-jékki na rek dara ñëw te mu mën a indi ak sikk nay dal di daw gaaw na yusufa dayoon na daw waaw ndax daw ba rëcc kat ci ngóor la bok rawati na nak lo xamni bakkar la nga daw ba ci bok na ci ñu xamni ci àtte da cee bok ñuy bàyyi xel li ñuy tuddé ay tektal al qara'in al akhdh bil qara'in jaiz moy dara xew fekke woo ndax juge bi àtte fekke fekkewul juge bi àtte fekke fekkewul yow mi déglu fekke wo ki ci netali fekkewul li am mooy léeg-léeg mbir xew moo xam ne ñaar ñu ko fekkee rek ñoo xam lam doon waaye nag al axsu bil xalaa'id jaayis léeg-léeg tegtal yi dana waree ni dëgg fii la féete mbaa fii la féete bul wax ne gars yi yéen yéen ñëpp noppi leen xamul leen li xew déedéet kenn xamul li xew ba ci juge bi sax xamu ko yàlla rek moo ko xam ak ñaar ñu ko seq waaye nag al axsu bil xalaa'id jaayis léeg-léeg mu am ay tegtal yu waree ni diw mii ma wax dëgg wala diw mii waxul dëgg ndaw si nee na Yuusufa da ko doon sàkku ñu ni xool leen bubu yusufa bu xoddee ko ci kanam moom la bu xoddee ko ci ginnaaw ndaw si la nga ni diw dama doon sàkku waaye dem na ba tëdd këram bay nelaw ba yàndoor ba ñetti fan ma dem ne waa adduna diw ko dama doon sàkku ñu xool gisuñ dara ci man dara daluma gannaaw yi sax foo naa fi tuuti waxtaan naa fi génn naa fi dem naa fi dikk dikk naa fi ñii fecc nañ fi ah loola bu amee borom xel yi xam ni lii amut borom xel yi xam ni lii amut léeg-léeg ndax yàq jara gor lay doon te bàkkaar bi gën a rëy bokk na ci yonent bi tuddee al muhlikat tuddee ko al mubiqat mooy yàq jaru gor boo koy Sénégal at mi moom damaa xamul fu ñuy jaar waaye li fi siiw ci waxu yàq jaru gor loola dafa ñaaw ci réewum julit day wane ni suñu lislaam gi coow rek la war nañoo delluwaat ci yarub diine mooy tax ñu xam ni ñuy jaamu yàlla dëgg-dëgg góor kenn du yàq jaram rawatina ci ay caaxaan nit boo bëgg a jàmmaan ak moom lijjanti ko waaye lijjanti gi nag bu mu yegg ci der ndax der dafa suufee ci lu ñu lijjantee sa diggante ak nit te am na fu muy yegg yàlla day intervenir parce que am na luy xew loo xam yàlla rek moo ko xam comme yow da ngaa fas yéene tuumaal nit yàq jaram yonent bi asalaam ne ne ku topp awra yi nit ñi yàlla topp sa awra ku yàlla topp sa awra danga la toroxal ba sa biir kër moo tax coowkat yu bari yooyu koo ci gis rek foo mu mujj mooy torox tànge ba ci biir këram ñu ne la moom ndakate li muy wax lépp ndakate moom ñu la mel nañ ko moytu nañ moytu tuumaal ay gor nañ téye suñu làmmiñ ci wax ju ñaaw ji ay nit di yëkkati ko jëme ci ay gor bokk na ci liñ ci jàngee mooy nit ki buy woote ci Islam, di woote ci yalla na ko def ngir yàlla yusufa bi mu ci kaso bi am na ku ko fa laajoon laaj ci wàllu gént mu firil ko ko bi koo koy génn mu ni ko boo demee ma buur bi ne man maa bëgg ci bi dem yusufa toog ci kaso bi juróom-ñaari at bi ko di ko laajaat neew ko bi ma la jàngalee dag kon du la da ko jàngal tontu ko xam ne loolu yàlla ko dogal yow muy jàngale lislaam bu ci ut àdduna bu ci ut àdduna li ngeen dégg tey ay façon yu waaraatekat ak façon yu ustaas yoo xam ne fu ñu toll mu mi ma diw jëndal dàll yi ma jëndal mbaxane mi ma jëndal xaalis bi ma yónnee loola dëppoo ak lislaam loola bàkkaar bu rëy rëy la yonent bi nee na man taallama ilman mimma yubtaxa bihi wajhu llahi لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لا يصيب رائحة الجنة واحد يقرأ ويقول من كيف بقول جاني خم خم بو خمني بيقول نت دي جانغ رجال يلا ما وردخ ساكو غرم يلا ما وردخ واي جانغ كل دول أم كي أدنى تبغى كي يكر جند كي أدنى سنتي غرام بو من يبجل لورك هذا من يقول جانغ لن يصيب رائحة الجنة خطأ الجنة دكو خيني moo tax il faut faire attention kuy jàngale l'islam na nga ko def ngir yàlla ku bëgg teranga la yàlla yor ci teranga doy na sëkk te nga dem ñaq yi nga dem liggéey fexe am dara ci sa ñaq nga jaamoo ko yàlla ni yoon ci yàlla daaw doon def te bu mu la tee wax ak nit ñi ndax booy wax ak nit ñi di leen laaj bu yàggee leen neex ngay wax bu dee da ngay wax ak nit ñi ngir ñu jox la booy demati ci jàng ya da ngay lijjanti ñay toog lu ñuy mel ah jigéen ñi kat waruma wax ci affaire yi muuraay waruma wax ci affaire yi xeesal kat tax mu ci waxee ëllëg jàng yi dootul neex nga ñëw rek nekk ci Xadija toog Nafisa toog toog nangam bu ko defee bu xumbee rek nit ñi jóg di jaabante xaalis bi dàq loola ngay def xam nga yàlla taxut nit day ragal yàlla booy jàngale diine nga jàngale ko ngir yàlla boo ko defee yàlla sa borom fay la rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina adaba annaar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله